auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci fanweereelu jotaay ak benn ci téereeb xalimag leer noo ngi tolloon ci wet gi di wax ci tuub ak jéggalu ñu yamoon it ci xasiid ak taxmiis maam lu yéeme rek loo xam ne Eh, seetlu nañ ko ci biir xasiida googu mooy boo ko dee jàng dangay ngay jéggalu jéggalu yoo xam ne amul fenn fu mu yem day wëy saa su nekk ci ni muy waxee ci misaal bu ne maa ngi jéggalu yàlla li feek suba yaa ngi jot li feek picc yaa ngi xëy di sab ci kaw garab yi ku ne xam na ne loolu moom du dakk waxtu wu nekk day am Eh, li feeg looloo ngi am nag maa ngi jéggalu yàlla kon day wane ne jéggalu gi day woy loolu benn benn rek la ci eh, laa ci joxe misaal waaye indi na yeneen yu mel noonu ba tey am na weneen waxin woo xam ne day misaal bari gu jéggalu yi di bari maanaam bari jéggalu yi misaal yi bari na lu mel ne maa ngi jéggalu yàlla lu toll ne araf yi ak lu toll ne li ci alxuraan ci ay aaya yu ñuy jàng ak xikam ci ay aaya yu ñuy jàng ak ay xikam kon loolu euh, bari ak bari lay tegtale bokk na ci li tegtale ak ba jéggalu yu bari maa ngi jéggalu yàlla lu toll ne mboolem luy dox ci suuf si ci xeetu rab yi ak lu toll ne li ci goxi asamaan yi ci ay mbindeef ak li ci suuf ci ay màndarga loolu lépp jéggalu bu bari lay tegtale ba tey mu ne maa ngi jéggalu yàlla lu toll ne limu gàncax yi ak lu toll ne li nekk ci géej ci ay xéewal ak li nekk ci jéeri ji ci ay xéewal loolu ak bari lay tegtale ba tey mu ne maa ngi jéggalu yàlla lu toll ne ngelaw yi ak lépp luy daw ci ngelaw yi ci waxtu yi ak xaaj yi maa ngi jéggalu yàlla lu toll limu biddiw yi ci lëndëm yu kukk yi ci biddiw yu feeñ ak yu nëbb yi seen lim lu ne toll maa ngi koy jéggalu maa ngi jéggalu yàlla lu toll ne limu fépp suuf yi ak lu toll ne luy liy sotteeku ci ndox ci mboolem àdduna sépp maa ngi jéggalu yàlla lu toll ne limub xalaat yi toq ci xelu mboolem xeetu nit ak ginne gis nga loolu lépp rek dafay tegtale jéggalu yu bari kon xasiida ak taxamis solo si bari na lool lool lool ngir limub jéggalu yi ni muy baree ak it jéggalu yoo xam ne luy wéy lay doon misaal yi mu ciy joxe léegi Eh, doy na ci sëkk kon bu ñu dee jàngat xasida gi danuy dañuy seetlu ne sëriñ bi bi mu jógee di sàkk lu baax fu ne la ko doon sàkkoo ña ko jiitu ku mu ci fekk nga def lu am njariñ dina ko jël jëfandikoo ko boole ko ci mbiram ba ca topp mooy ni mu xereñee ci wàllu mbind ak way ni muy tëralee mbir yi yemi na lool ci waxin wi mu jëfandikoo it dina ci dinañu ci xame ne xasidé gi di taxmis bokk na ci mu teel ndax xeetu waxin wi ci ak njëlbeenam la ko daan waxee dinañu gisit njariñ yu bari yu xaside gi làmboo ci képp ku koy jàng ndax yéen ciy lim di ko jéggalu nun dem mooy sunu sikk yu nu war a tuubal yàlla e, fu ñu toll loolu mooy sunu sikk dëgg-dëgg li xaside gi di wax li nu mujj leeral nag day wane ne xaside gi boo ko dee jàng yaa ngi def tuub ak jéggalu yoo xam ne yemul fenn ak lim ab limam it kenn mënu koo takk te dalay wóor ne defoo benn bàkkaar bu génn ci yi ñu tudd ndax bàkkaar yu ndaw ak yu mag moo tënk lépp boo ko xasee tuub lépp dugg na ci biir nu ak mooy mën a toll ak lu mu rëy rëy rek boo xasee ba tuub bàkkaar yu mageek ak yu ndaw yi lépp day dugg ci biir te xasida gi làmboo na ko indi na lépp kon noo ngi am foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.